question la en ñu taxaw ak maître Moussa Sarr ñu bàyyi ko mu tënk ko ci kàllaama Kocc. waaw li ñu li ñu bëgg a tënk ci wolof euh, man damay wax ci turu avocat Ndeye Khady di leeral ci kàllaama Kocc Barma euh, lan moo tukkee ci audience bi tey euh, comme bi ngeen ñëwee ci biir salle d'audience bi gis ngeen ko woo dossier bi tey bi ñu wooyee dossier bi. avocat Ndeye Khady Ndiaye jóg juróom-ñeent lañ mais juróom-benn yi ñoom ñu ngi door a ñëw ci dossier bi bi coow li tàmbalee am na léegi ñaari at nekkuñ ci woon juróom-benn yi kon xamuñ dossier bi te booy layool nit il faut nga xam li nga koy layool lan la pour xam loola il faut nga jot kayit yi jot lépp lu bokk ci dossier bi nga càmbar ko gëstu ko waxtaan ci ak sa cliente laaj ko lii ma gis comprendre ma ko lii lan la lii lu muy niru lii lan la ba pare avocat yi bokk toog dajaloo am benn tëralin boo xam ne ñoo ko bokk ne ñun ñëpp ci dossier Ndeye Khady nii la ñuy taxawee mais juróom benn avocat yooyu nga xam ne ñu ngi door a ñëw ci dossier bi bees man ci laa bokk bi ñu ko ci tribunal bi muy chambre criminelle bi ne nañ ko dàq ni ko yoon mayee mooy les droits de la défense sont absolus parce que suñu constitution moo ko wax boo demee article neuf suñu constitution in fine dafa ne les droits de la défense sont absolus à tous les états et à tous les degrés de procédure mooy donc dañu war a jox matukaay yëpp avocat yi nga xam ne ñooy layool ki ñu topp xeetu ñaaw ñaawteef bu toll noonu pour ñu mën a jël seen matukaay yu war ci seen teeyu bakkan ci jàmm ak seen aafiya pour ñu mën ko layool tribunal bi malgré li ñu wone ne ñun ñëpp ñu ngi door a ñëw ci dossier bi ñun juróom benn yi chambre criminelle bi bañ ne moom du ko dàq ek daf koy at ñu jàpp ne kon suñu sañ suñu àq suñu yelleef ak yi ñu toog ñun avocat Ndeye Khady Ndiaye waxtaan ñu ne ñun mënuñu nekk ci layoo boo xam ne suñu àq ak suñu yelleef ak bu suñu client muy Ndeye Khady dañ ko salvaaje dañ ko nappaje kooku mënuñ ca taxaw di am lu ñu cay wax kon ñu bokk juboo ne dañuy génn ci layoo boobu parce que layoo boo xam ne kenn joxuñu suñ sañ-sañ ñun dañ ciy génn ñu génn ñun ñëpp maintenant dañ koy layoo sans avocat mais loolu aussi c'est illégal parce que en matière criminelle am avocat c'est obligatoire kon même ñun bu ñu déggoo suñu biir ne du ñu mën a layoo parce que joxoñ ñu temps bi war may ñu ñu gis dossier bi may ñu ñu càmbar ko may ñu gëstu ko aussi chambre criminelle bi dafa waroon a jël beneen avocat désigné ko parce que kenn warul atte kenn am matière criminelle sans moom avocat kon chambre criminelle bi lii muy def nii sax tegul ci yoon dafa jalgati yoon. mais est-ce que a Khady Ndiaye am na sañ-sañ bañ beneen na tribunal moo ko euh, ci bu ko neexee bu ko neexee mais. tribunal bi yëguñ benn yoon fu ñu jëlee beneen avocat tànnal ko ko mais ci yoon dañ ko war a tànnal beneen avocat parce que en matière criminelle c'est obligatoire mais client bi am na sañ-sañu moom ne man diwoo ma gënal këlee ma gënal mais yegguñ foofu te yëguñ ko itam. mais décision bi ñu jël mooy duñu duggaat ci salle bi ñun ay avocat lañ suñu ak ak yelleef yi gën a ndaw mu di droit de la défense bu suñu boos pour suñu client pour ñu mën ko taxaw pour ñu mën ko teewal nu mu gën a rafetee nu mu gën a ñoŋe ñu tere ñu ko mais ñun avocat lu ñuy defati ca booba saal kon suñu warugar dañoo génn bàyyi leen saal ba. am nañu info comme quoi am na beneen avocat bu buy wax ak Ndeye Khady Ndiaye ci biir saal bi. bon yëguñu ko ñun amul. amul ba bi ñuy génn amul. mais bon xamuma parce que moom moo fa nekk ca biir moom moom am na sañ-sañam peut-être pour wax ca loola. bu amee bu amee ndax sañ na bañ wala sañ la bañ. mais waaw moom moom boppam moom mooy to moom moom mooy décider su ko neexee mu bañ am ku ne yaa moom sa bopp boo demee tribunal am nga sañ-sañu ne man kii du ma layol may ut su ma ki may layol su la neexee aussi nga nangu ko loolu ci moom la dépendre. maître Khouraychi Ba yow tamit nga bokk ci avocat yi daal Ndeye Khady Ndiaye euh, ñu ngi ak maître Khouraychi Ba euh, su ko defee moom tamit ñu daal di koy taataan. voilà maître Ousmane Sonko voilà d'accord maître maître ñu ngi ñu ngi lay nuyu mën nga jege si tuuti d' accord maître Massokhna en français. je suis maître Massokhna Kane. avocat de monsieur Ousmane Sonko. dans le collectif d'avocats. Nous sommes une trentaine ou plus, parce qu'il y en a beaucoup qui